leeral bàyyee ko ca Sénat ci bataaxal boo xam ne jot nañ ci mu jëm ci décision bi nga xamante ne juge bu tribunal grande instance bu Ziguinchor def na ko ngir rek fexe ñu dugalaat ci di Ousmane Sonko ci liste électorale bi Sénat nag dafa leeral ne rek ci procédure bi fu mu tolloo jamono ji bu fekkee ne amul lenn loo xam ne da koy indi gàllankoor wala sax du indi yeneen jafe-jafe Ousmane Sonko war nañ ko mën a jàpp comme électeur boo xam ne dafa bindu ci liste électorale yi ak droit yi nga xamante ne ñoom ñoo ci war a dem itam ci noonu sax la ñaaxee direction générale élection yi ngir mu rek mu jël matuwaay yëpp ànd ci ak ay service yoo xam ne ñoo nekk ca ministère bi yor élection yi ngir rek ñu jël seen matuwaay su ko defee ñu jox ki nga xamante ne mooy mandataire Ousmane Sonko bi euh, fiche de parrainage ak clé USB ak bépp jumtuwaay yoo xam ne rek dina tax mu dem collecte ci mbirum parrainage ni ko loi bi waxee Sénat yokk ci di leeral ne rek donte sax am na initiative yoo xam ne mandataire bu Ousmane Sonko financement boo xam ne dina tax mu def ay collecte waaye initiative yooyu dafa am ay jafe-jafe ndax kilifa yi nga xamante ne ñu nekk ca direction générale élection yi dañ ko bañ loolu sax waa DGE jot nañ ko firndeel ci communiqué boo xam ne ci ñaar fukki fan ci weeru octobre la am direction générale des élections jot a leeral ne nag dafa am recours boo xam ne dañ ko def ngir rek ñu nilal li nga xamante ne moom la juge bu tribunal bu grande instance bu Ziguinchor daal di wax ngir dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi léegi mu ngi ci yoon